sama gars yi na def yéen a si jàmm ok ñun ñëpp ñu ngi leen di souhaiter bonne chance pour seen coupe du monde bi ok amoon na gars yëpp a ngi seen ginnaaw <laughs> ok gars yi bëggee ñu ngi seen ginnaaw. waaw big up big up big up bonne chance les gars yal na leen yàlla jàmm incha allah ba baax. asalaamaaleykum sama gaynde yi Papa Léon Ndiaye. juste pour vous bonne chance yalla alaikum coupe du monde mes frères sénégalais j'espère que vous allez bien je voulais vous envoyer un grand message d'encouragement pour euh, la préparation de la coupe du monde j'espère que ça va bien se passer portez haut et fort les couleurs du Sénégal je compte sur vous vous vous soutiendra jusqu'à la fin inchallah et bon courage à vous force à vous les lions. salut les gars euh, euh juste un petit message pour vous souhaiter euh, du courage dans cette compétition en espérant que vous alliez, vous alliez le plus loin possible et que vous portiez les, les couleurs de notre pays euh, au plus haut sommet. Allez, force. gars yëpp gars yi maa leen di ziar di leen bëggee bu team national beach soccer maa di souhaiter bonne chance et que yalla yalla def li gën comme d'habitude rek noowat faawan waaw ndam rek ñu ngi seen ginnaaw ay ca puissance